Touba yi démb daa mel ne yow da ngaa jóge Touba rek taw bi kii la. Mhm. noo ko dundee euh, habitant Touba. bon bon métti na parce que li moom catastrophe naturelle la quoi. Mhm. parce que li ma gis ak li ma wax moom catastrophe naturelle la. Mhm. mais nañ ci sant yàlla parce que sëñ Mountakha am na at xam ne nii inondation yi. da ci wax ne lii xéewal la. damay réitérer ak propos mi man lii damaa jàpp ne la. waaye nag euh, bon euh, conséquence moom. dafa extrême quoi. parce que nag soo demee ba ay kër di ci daanu. ñu naan ay ñett nit faatu nañ. Mm-hmm. ak euh, nouveau gouvernement bi xam ne effort yi def ci six mois yi rek. Mm-hmm. da ngay xam ne. ah def na effort. ah si xam nga développement c'est un processus. Mm-hmm. man bi ma xoolee image rek. soo benn waaye dafa envoyé vocal rek. ne ma Diop mu ne ma jot ñu jàppee Macky Sall indi ko. ma ne ko tax mu ne ma waa dañoo jot ñu jàppee Macky Sall indi ko. parce que lii nii moom. lu kenn xamul la. parce que loolu rek dañuy laaj ñun suñu soixante dix milliards yi xam ne nii def na ko ci inondation yi. Mhm. parce que Touba dañu ñoom def nañ fi soixante dix milliards. am na soixante dix milliards fan mhm. tey am Touba. Mhm. koo gis sa day daw. ñun la am na nguur nga xam ne nekk na fi douze ans neen def nañ ci soixante dix milliards. parce que li am dafa dafa doy war quoi man see indi mosuma gis ci Touba ñun la dëkk bi moom mooy capital économique. wala deuxième capitale économique. ñu la dëkk bii kat mooy département bu ëpp ci Sénégal. kon wax dëgg yàlla état dafa am beneen taxawaay bu mu waroon am mais kon l' de Macky Sall wala Macky Sall lui-même a failli son mission. a failli sa mission loolu loolu c' réalité ñun bi ñëwee avec euh, le ministre de l' aménagement du territoire le ministre des collectivités locales et l' aménagement du territoire et cadre de vie. mooy Moussa Balla Fafana. Mm-hmm. ak ministre de l'hydraulique ak Serigne Cheikh Thioro Mbacke honorable député soo xoolee ñun liñ fa liggéey. Mhm. lañ fa def suñ ko defoon ci cinq ans waxuma la ci douze ans ci cinq ans. Mhm. wallaahi inondation vieux souvenir lay nekk. ci Touba mais soo xoolee dafa am benn changement climatique bu am mais aussi dëkkuwaay yi. Mhm. dafa am ñoo xam ne ci nappe phréatique bi lañ nekk. Daaru Xuddoos comme wala li wër jumaa ji kër yooyu yëpp soo fa demee muy newet di noor da fekk ndox. endroit boo xam ni aussi gis naa ci benn euh, benn spécialiste mu ci wax Touba euh, suuf si dafa màndi ndox hmm. dafa dem ba màndi ndox quoi léegi ndox moomu faaw ñu irrigué ko hmm. faaw def ay canal yu xóot yu hmm. mag pour mu mën koo yóbbu ci euh, bassin de rétention yi mooy comme exemple yi nekk Daaru Marnaan wala yi nekk Kër Kàbb gis nga dama lay wax gis nga un développement c'est un processus gis nga inondation bi lii pour régler ko ça ça demande presque di trois ans wala quatre ans parce que processus la war a doon dama la jox exemple si sa Coro Mbacke ren séddale na presque ay cent et quelques moto pompe ak équipement ak lépp essence lépp mu boole ko ci mais taxul li sotti ministre de l'hydraulique mhm. lam fa indi ci ay moto pompe mhm. presque màggal gi fa la nekkoon presque am na fa quinze jours génnul Touba mhm. soo xoolee taxawaay boobu ñu am sax moo tax màggal ñu mën koo màggal si jàmm sax xam nga ci ndox ba murid yi màggal ci màggalu jàmm ak saam loolu vraiment c'est extrême et c'est c'est et ça mérite des félicitations kon nag loolu tey su lii amee da ngay xam ne développement du taf yëngal ñi fi nekkoon dañu doon taf di yëngal loolu moo am soo xoolee ñun am na benn seetlu bu ñu fa def ñu ngi ko def ndaamaatu li wër hôpital ndaamaatu keroog canalisation bi ñu dindee euh, bi ñu dindee caniveau yi booy GPS yi. Mhm. Pastef Touba maa ngi Pastef dugg ci biir kan yi. Mhm. di ko ŋàcc di génne mbalit mi. keroog nañ fa génne ci mbalit ay camions yi camions la. maanaam mhm. rive riverains yi ñoom ñoo la wax ne lii mosuñ ko gis. biñ ko defaree ba léegi canal bi ñu ko defaree kenn mosu ko tijji. soo xoolee moo ñu jural ndaamaatu. waay inondation amu fa woon li wër hôpital bi. am na borom sareet yi xam ne sareet yi dañ la fii neer su musaan ñëw kenn daaw fi jaar. kon liggéey boobu ñu liggéey am na benn réussite bu mu ñu bañ a bàyyi ba ne di comme état bee doon def di taf yëngal liggéey bi nañ ko liggéey H24 durant tout l'année parce que loolu yi moom mooy indi njeexital si askan yi mais fekk ay taf yëngal rek su neet ñoo ñu gas seeni kàmb comme ne état bee doon def indi ay indi ay ay ay ay ay ay bulldozer mhm. ñu naan état baa ngi liggéey état baa ngi te liggéeyu dara parce que 70 milliards ñuy def nañ ko Touba 70 milliards anamu lii soo ko 70 milliards soo ko jëndoon ay morceau fabriquage. Mhm. billaay ndox mi jeex. morceau fabriquage soo ko jëndoon 70 milliards. Mhm. ko fii ndox mi day jeex tàkk da ngay naam. kon dèjà kon nañ jël les hommes qu'il faut à la place qu'il mais xaalis bi ñuy def ci ndox mi. ci inondation yi na àgg fa mu war a dem. Mhm. loolu mooy rupture. loolu mooy jub jubal jubbanti mais damaa gëm ne seet seetal bi ñu fa def. soo xoolee ministre de de de de locale collectivités locales. Mhm. et de l' du territoire. soo xoolee doon na wax ne Touba am na zone yoo xam ne dëkkuwaay kenn mënu ko faa defati. mooy comme exemple li ci li ci mel ni Ngiraaneen. Mhm. li ci mel ni aussi Mbal. am na quartier yoo xam ne nit mënut faa dëkk. parce que zone bi nap phréatique bi da koo jege. kon loolu aussi dafa am ay mhm. travaux yoo xam ne da koo laaj déplacement bi aussi. déplacement dafa moom laa lay wax. léegi nag leen rek laa xam mooy armée nañ mobiliser armée parce que dañ naan armée nañ mobiliser armée parce que lii ma gis nii. maa gis nañ Touba euh, ca kanam commencé di mobiliser di def ay abri provisoire. exactement mais gis nañ lii. armée da ci war a dugal loxoom. te mhm. gëm naa ne euh, euh, président Ousmane Sonko le premier ministre doon na ci wax yu mel noonu mu ne armée bi faaw ñu def armée et nation. Mhm. pour mu ñe askan wi gis seen. njariñu si armée. loolu gëm naa ne lii armée mhm. bi dana def ay. occasion la yow ay ay ay ay ay intervention. pour ñu gën a mën a gaawal ndox mi dañ fi. Mhm. mais lii daal moom catastrophe naturelle. moom mhm. da cee bokk. waaw loolu loolu ah. mhm. wax. dañ naan ana suñu suñu suñu soixante dix ñu ne saa yi ana suñu soixante dix loolu Diomaye da ko war a leeral. te ñun loolu la ñuy demandé. ak lu mën doon nañ ci téye les responsables ñi ñu ci war a jàpp jàpp jàppale ñu war a mën a fay ñu fay. Mhm. man loolu laa gis quoi. mais Diop gis nañ di ma saw nag di ma saw askan Tuuba di leen jaale aussi di leen jaale aussi. di ñaanal ñi seen bakkan des. yàlla xar leen àjj seen mhm. seen yàq. Mhm. parce que maa ngi leen ma saw lii métti na trop. dëgg yàlla métti na. parce que lii nag vraiment euh, Touba ne mérite pas ça. ce traitement cet insiste. boo xam ne nii subir na ko durant douze ans. Euh, il faut que ça cesse. te gëm naa ne Bassirou Diomaye fay Faye. waaw dana def statut spécial. Touba wax na ko si conseil des ministres. Mhm. nee na aussi lac de guerre bi dana essayer tout. mu ñëw Touba. du ñu am euh, une eau. en qualité en quantité. kon loolu daal encore une fois. Euh, d' accord mais Diop euh, avec le nouveau changement dina am incha allah. d' accord Diop maa ngi gis ni voilà yaa ngi doon def ay mbir yu am solo foofu sa Taïf Euh, di ay journée de reboisement ay euh, commune Taïf yaa ngi ci doon invité sax ci nga xamante mooy Cheikh Thioro Mbacké mhm. euh, mi ngi noonu affiche baa ngi noonu mais mhm. Diop dafa mel ne da ngay waajalaat yeneen bés mhm. ci jëmale ko ci commune bu Taïf waaw incha allah moom xam nga Taïf moom dafa nekk dëkk boo xam ne nii mënuñ koo fay lépp lu ñu am ci lu baax rek Taïf la dëkk la xam ne fa nga juddoo yaroo fa màggee fa lépp mu defal la ko te Serigne Mbacke Saloum mi xam ne suñu roykaar dafa waxoon ne moom ndaw ñi la am yaakaar mooy Taïf. Mhm. te yaakaar googu nag gëm naa ne du tas. lii nag wax dëgg yàlla bañ doonu woon dara lañ ko daan def. Mhm. en tant que activiste en tant que citoyen de Taïf. ak benn association bu ñu naan ànd defar Taïf. Mhm. di di def un vivre